sëñ bi man siw rek la soxla soxlawuma leneen siw rek nga bëgg d'accord légui est-ce que mën naa la am ay photo rek comme ça ma mën ko yónnee après waaw d'accord légui da ngay taxaw comme ça voilà légui wan ma ginaaw voilà légui defal fi sa numéro waaw loolu moom dana ma neex comme ça producteur bi dina la woo. Eh, nag ma woo de. yow siiw rek nga bëgg. siiw rek laa dafa xew naa la woo. waaw dinaa ko déglu merci xaar ma dem tey moom dal di mooy booy bi nekk ci koñ bi di jaay neex. daay léeg-léeg laa ko fekk. nee naa ko réalisateur laa jox na ma numéro. raa lan yow raa. xoolal d'ailleurs daa war a ñëw kër bu ñëwee noonu. dama ko bëgg a suukar. est xam nga kii koy jëkkëram. kan mooy jëkkëram. sëñ Moodu. waaye bàyyi ko waaye nga naan ma sëñ Moodu. yow fii ñaata nit dafay am dal si. loolu def am

voilà bien mi uusu eh. billaahi mina seytaane waa lii lu mu doon Sidi lii lan la. kii kan la. ma ne kii kan la laa wax. kii kii sama collègue la. collègue ba sama biir néeg lan wut fii lan ngeen wut fii sax yow. bokk li ñuy liggéey maa ngi moom. maa ngi moom ñoo bokk li ñuy liggéey. waa doo ko yóbbu ci bureau ba waaye fii lan la fii def. si dala rek. kii réalisateur la dafa ma jëloon pour casting yow may ma ma tukki muy indi jigéen sama biir néeg waaw dégguma bu baax répéteel kii réalisateur la dama ñëwoon si biir kër pour mu defal ma casting yow lan la soxna si dala waaw gëy naa ko waaye yow lii lañuy ñuy wax ñuuba noo sant mu ne wele yow kañ ne nekk réalisateur yow eh, yow kon nekkoo réalisateur mm. la ilaha illallah ay man li ma fi defee bi yàqu naa. eh xaw ma yàqu nga xaw ma yàqu woo ma ne eh, sama baaraam topp ko. Eh, génn sama kër laa wax eh du ma génne noonu man du ma eh, génne de. waaw ma ne génn rek soxna si. yow may ma sama jàmm. génn yow barki dee moo mag. bett nañ la fal jëkkëru jaabur. yow am nga loo may wax yow. waaw daa juum du man de. yow bu du woon a chef de cadre ñu toroxal la. yow nag aw ma leen lu may wax yow ku bon nga. yow yaa yow man ngay trop kon yow sa lameen bu reuy bi yeb nga dugg fek sa bagage yu bari ni yow yaa ngi ci all bi di def lu la ne. dede dafa juum. d'accord yow yow yow sama problème ak yow dina ko rek ak duma fi taxaw sax di perdre temps. ay way way way xalé bu jigen bi tas na sama kër man ni la la ke fa la ke waxe waaye yalla baax na yëpp dina day. Thank you. jërëjëf jërëjëf wa arko de Dakar li ñu indi nak amna solo macha allah amna solo nday maa ngi denga nan amna solo kon keufal wallahi wallahi ndaysan man sama yaram dafa daw. lutax ndax li docteur di wax ninyep ñom lool Mana ñu fi nit ñepp tek ci seen beut manam mhm. ku ki mom dafa moy. mais fi na bàyyi na engagé na jabaram. deug la da moy moy da rek. Mhm. amul góor amul jigen. mais Sénégal da ngay gis ko yor ñaari jabaram dem ëmbal doomi jàmbur te kenn du ci wax te moy mooy la rek amul ku jigéen amul ku góor baaxul yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko sénégalais mooy du sunu réalité waruñu koo def amul góor amul jigéen te fi ne bàyyi nañu wàllu ku góor ki mais ku jigéen ki fi ne mooy yenu coow li te ñoom ñaar ñëpp a war a gàddu coow li ci ñoom ñaar ñëpp faama dëkk bi na de. <laughs> dëkk bi toj na de ak feccum ginnaaw. dag may nax <laughs> mais mooy gi dafa bari fi mu ne. Ah, lii nu def rek moo xew ci àdduna rek. donc yàlla nañ ci yàlla musal. amiin ñun ñi nga xam ne dégg dong lan ci am. Mhm. yàlla nañ ci yàlla musal ba duñ ko ba duñ ci teg suñu bët. waaye xam naa daal mooy gi moom euh, parce que réalisateur bi mu ko wax ne moom la tas yaakaaram kon nag pexe góor a ngi ci. Mhm. waaw kon nag xanaa ma nuyu imaam rek. maa ngi lay nuyu dina dalal jàmm kontaan ci eh, ñëw gi nga ñëw xam naa nag thème bi tey yaa Khalifa eh, sama gars yi rek bu ngeen ko séddoowee mu gën a neex. waaw euh, soxna Fama euh, ñu ngi jaajëfal waa ARCO ci exemple bi nga xamante ne indi nañ ko muy feelu li xalifa euh, wax léegi professeur li nga xamante ne wax na ko mu nekk loo xamante ne luy dagg xol la. Mm-hmm. ci société boo xamante ni. am na bët bu ñuy xoolee jigéen ci wàllug ne moom warta def nangam cest à dafay ñëw di jëm ci mbir yi nga xamante ne dañ koo chargé jigéen léeg-léeg nga gis kër goo xamante ni góor mun na am ay doom ci biti néegu sëy te sëyam du tas mhm. mais jigéen bu amee li nga xamante ne moom mooy doom ci biti li nga xamante ne moom mooy néegu sëy wala sax ñu gis ko mu xaw a taxaw taxawin buy jur siki sàkk rek àdduna tukki fekk ne buñ ñëwee sama jigéen mu ngi koy wax mooy mooy la dafa am benn saar ci alquran yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ko tuddee la lumière suratu nuur nga xamante ne jullit bu nekk daf ko war a jàng gëstu li nga xamante ne moo ci nekk et pourtant foofu yàlla subhaanahu wa bi muy wax góor ñi ak jigéen ñi dafa joxe ordre le prophète sallallahu alayhi wasallam mu ne ko qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna so len deggo deggé limay wax ah déggaguñ ko de foog nga jàpp ci nag non laata laata ma koy firi bi maanaa soo déggee baat yi may wax waaw dafa mel ni même baat laa répété dëgg la dafa ne qul lil muminina yaghuddu min absaarihim mooy lan waxal way gëm yu góor yi nañuy sàjj seeni xef di sàmm seeni pëy mu ne qul lil muminaati yaghdudna min absaarihinna wa yaxfadna furujahunna waxal way gëm yu jigéen yi nañuy sàjj seeni xef di sàmm seeni pay foofu daal ñoo tolloo góor ak jigéen ñoo tolloo maanaam ni góor war a eh, sàmmee boppam noonee la jigéen war a sàmmee li nga xamante ne moom mooy boppam nekkul ne jigéen bu fekkente ne dafa dafa dafa dafa dafa mooy borom bi subhaanahu dafa am sanction yoo xamante ne day tegu ci kawam plus bu ko góor defee. sanction bi moom lan la sax. mu nekk loo xamante ne lu lu lu oyof la. sanction bi moom. bu dee bu dee ci lislaam moom. Ah. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne. ki mës xam yoon wu dagan wu lew. parce maanaam ku sëy ba fase. ku sëy ku mës a sëy. waaw ku sëy ba fase. ku mës a sëy. waaw ku mës a sëy. ku képp ku mës a sëy xam nga ku mës a sëy xam na fi ñuy amee lu lew parce que xam na nu ñuy yóbbee guro. xam na nan la ñuy def ba mun a am lu lew moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne laa yaxillu damu mri'in muslimin illa min ihda thalath dereetu jullit du dagan lu dul benn ci ñett yi bokk na ci ñett yooyu ki nga xamante ni moom moo musa sëy ba pare mu njaaloo kooku mooy gën a méttile waaw kooku moom dagan eh, amatul droit pour dundu ci l'islam moom dañ ko war a rey. dañ ko war a faat dina métti di. te tey ñu ko seet lu gën a oyof. xam xam nga lu tax lu tax lu tax l'islam di wax loolu soxna Fama. Ah. l'islam dafa bëgg société boo xamante ne société bu laap la. Hmm. société bu laap la tey góor bu musee dem ci jàkka labat dem takki sëy xam na voie légal bi mu war a jaar pour kël mu am lu lew. xam nga yàlla subhaanahu wa taala boo demee ci suratul maida muy surat li nga xamante ne moom mooy euh, six euh, surat cinq du moins borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ne góor ñi daganul ci ñoom ñuy am jabar ba pare di am ay coro jigéen ñi tamit daganul ci ñoom ñuy am jëkkër ba pare di am ay far donc lii xalifa doon wax boo koy xool certes fii société bi dafa toléré. dafa dafa dafa toléré góor lu bëri. mais bu ñu ñëwee ci ci balansuk l'islam li l'islam tere ku góor ki noonu la tere li nga xamante ne mooy ku jigéen mooy terme li ma no dafay wax ne wala muttaxidi ax daan fële mu ne wala muttaxidaati ax daan même terme bi mu utiliser pour góor moom la utiliser pour jigéen bi maanaam ni mu xaraamee ci ku góor noonu la xaraamee ci ku ci ku jigéen loo wax ci thème bi ba doog a nuyu sa xarit wala da ngay nuyu sa xarit ba pare. non sama xarit moom kontaan naa ci teewaayam gis nga moom bu ñëwee rek commencé ko. da koy méttil de. tojati ba mu ba mu mokk rumb <laughs> moom kenn du moom <laughs> te dafa expérience. ah dafa am non moom dafa ma ëpp expérience ma raw lu bari. ah mom terminal la nekk yow ci classe non man man benn galon la mom mi ngi ci kat. commencé na tooñ. commencé na dafa am xam nga man lii moo tax seen neex ma. xam nga pratique bi daf ci am solo. Eh, waaw dafa am bu macha waaw lim la rawee bari na nag Khalifa. waaw bari na mais am ci foo xam aussi. ci moom li wax. il faut mu ko rek dina ci kër yi. Ah. Eh, xam nga fu góor gi nga xam ne am na benn warul di am coro. waaw. xam nga warul du am coro boobu man comprendre naa ko de mais bugguma ñi nga xam ne ñooy nekk ci kër yi. ñu bañ a comprendre. parce que jigéen ñi ñoom dafa am lu ñuy tuddee infidélité te loolu du infidélité man jàpp ma ne infidélité lan lañ lan la ñuy wax loo xam nga ji jigéen ñi ñoo Sénégal xam nga maa ngi lay wax toujours ci émission yu bëri jigéen ñi léegi li ñu gën a bañ mooy wujjee ku ci am sa jëkkër rek jàpp ne man warul am beneen léegi xam nga góor moom pour mu am beneen il faut mu xamanteeg. ki mu ki mu war a takk. xamante bu amee rek nee nañ il est infidèle daf ma daf may trompé. gisuñu dara nag gisuñu benn mooy xam nga nag trompé moom même ci l'islam dafa xóot mais ñoom bu normalement sax ku góor ki war na buy waajal mën a wax jabar ji que ni man kat maa ngi waajal. waajal waajal takk wala waajal dem waajal takk. ah mais fii kenn sañu ko fi wax. Hmm. kenn kenn sañu kenn sañu fi wax ne mi ngi waajal. dëgg la parce que jigéen ñi interprétation boobu lañ ci am bëri na ay xuloo yu ñuy gis yoo xam ne daan moom am na ku ko envoyé message am na ku ko lii donc ñoom di di ñàkk xam nga man man munu ja xaw bu fekkee ni dama juum oustaz wax ma munu ma jàpp ne góor mën na tëb rek takk ñaareel ta labatul. ah foog mu labat de. mën na tëb rek jël keneen ta labatul il faut mu labat. même bu dee ci condition yi ko l'islam waxee la wala wala ci droit il faut mu labat. <coughs> te condition yooyu sax xalifa mais jigéen ñi ñoom boo koy def dañuy jàpp ne yow yaa ngi leen mooy ñoom noonu lañ koy interpréter. <laughs> donc confusion boobu bugguma mu jóge ci émission bi dem seen bopp yëngal ay kër yu bëri. <laughs> mais condition labat parce que moom loolu mu wax. waaw moom xëy na du ko indil jafe-jafe. mais li mu wax yow da lay indil jafe-jafe. man non non eh, ah. wax ju du man. wax ji sénégalais yi seetaan couple monogame yi seetaan yëpp. wala couple yi nga xam ne ñoom ñi ngi ci ñaar matalaguñ ñeent yi. ñooñ ñooñu la war a waxal fi mais wax ju du man bëgg nga ma rek ak ak imam. man ma assumé yemagum ci benn moom dépassé na ko. ah nangu naa moom ma ëpp grade. kon jeex na yaay naata loo wax. ci ci sketch bi gars yi joué. waa femme maa ngi leen di nuyu mais li ñu joué nii. waaw euh, jàngat la. man nga ci gis lu baree bari. xool ni ku jigéen ki taxawaayam bi mu taxawee ci position bu normal la taxawee parce que mu ngi taxaw ci bañ ak fulla ak xaar oto mais ku góor moo ñëw fekk si ko. dañu doy waar. mais bi mu ñëwee fekk si ko xam nga jigéen euh, léppam dikkul. Mhm. jigéen dafa bari ay manquement bi mu ko fekkee ta mu taxaw ci arrêt bi féministes yi duñ ci wax ji de. waaw mais dinaa ko toj. waaw baax bi mu ñëwee fekk mu taxaw ci arrêt bi moo ko cokkaas tàppaas ko indilaat ko jàmm ci biir wax ji wax ko lu ko neex moom it bëgg siiw tax mu dugg ci lu mu warta dugg moo tax nit dina dugg ci dara ca xamul lu ko ci dugal moo tax nit ñi dañoo war a delluwaat ci ay valeur parce que li valeur moy so amé sa jëkkeur mu tak la sa nawlé la nawlo la yow tamit dang ko nawlo ndax sa yoo démé moy boy ñew bo nekkon kilo gën waa liibar ngay né wallahi ndaysan ki nga moyal dula nawlo yow bo wété tok sax do nawlo sa wallahi nit dafa wara nawlo bopam ci jigen dafa bari ay valeur jigen dafa bari lu yalla dexeñ ci mom kon su démé ba dégg alxayri ak alxayri ni mu diise ak ni ko yàlla fonke muy kàddu yàlla ñu toog yew la may la sa nawle addinaag li ci biiram jarul may du bànneex du alal du dara du jigéen gis ba war ko jaral moom mooy jëkkëram et war na ci xool doom yi aussi ak ki doomam sa doom sa nawle la sa doom sa nawle la boo xamee sa valeur xam sa valeur doo boo xamee yow peese sa bopp ba xam ñaata nga ci ngay xamé sa valeuru borom kër sa nawle bi la jël di sam nawle ngeen am ay dom ñu say nawle bala nga nawlo sa dom sax yow ci sa jëm bop da ngay jëk nawlo sa bop parce que li nawlo sa bop moy xol sa bop xam ni yow mi xam li nga pécé li nga pécé sam nga sa ngor ci intérieur ak ci biti intérieur moy parce que na naw si mom keuf da ko yob keuf ko yob ak bëgg a siiw waaye yooyu nag moom mën sax ci siiw wallahi te siiw ndax siiw mën na jóge fu ne pexe góor nag moom dafa doy waar fi fi waaw ñu moytu pexe góor nag waaw nañ ko moytu pexe góor ndax góor man la def loo jigéen lu ne dëgg la waaye jigéen it na xool boppam ba góor ñi nga xamante ne ñooy taxaw ci mbedd mi di bëgg ku ñu defal lu ñàkk fayda nga fexe ba du duñ la dominer. te moom dafa mel ni sax vengeance la ko dikkee ndax après wax na xaritam bi ne mooy ndaw si fi nekk rek di jaay affaire ah. kon moom daf ko bëggoon a wàcce rek daf ko bëggoon a wàcce rek xam na ni jigéen ju baax la mm-hmm. jigéen ju nekk ci koñ bi Euh, am lu muy dégager ci ay valeur mu xool ko moom it nekk xale boo xamante ni ku góor ki ñaawul. ah ñaawul waaw daf ko doose. <laughs> daf ko doose xëcc ay weeram diri portable am xam nga jigéen amul xel. Uh-huh. surtout ment suñu doom yi ñu koy lancer message nag suñu doom yi nga xam ni dañuy soog a jóg bu leen dara yóbbu. Uh-huh. ndax alal day jeex. ngor rek moo fi nekk. taar day jeex day jeex. Uh-huh. lepp day jeex alal day jeex tar day jeex addina bi ñek sax day jeex mm-hmm. kon nag tubaarkàlla macha allah boo xamee ne yow da ngay jeex ci li nga tok day jeex kon def fi lu rafet ba mm-hmm. tubaarkàlla macha allah boo jàkkaarloog sa nawle bi la ji ma ngi ñëk ñi dañ daan xass bu fas euh, tëddee ñu ni biiram day metti da nga daan gis ku dawee ci ci neegam wala mu dawee ci waañ wa dikk jàpp ba set mm-hmm. ni bàyyi leen ma ma door sama loxo jéggi fas wi fas wi ni ñokket jóg mhm. pourtant ba léegi am nañu ko mën a def de ñu nekk ci réew mi ay jigéen te loolu njëriñam moo doon pour ñu koy ñi seetaan njëriñ bi mooy nga xam ne da nga war a sufiyankew ba boo toogee sa jëkkër sax am tey jii ngay li ngay xale xale xale nga incarné jom ak ngor ba tey jii boo toogee sa jëkkër ñu ni fasa nga nee tëdd wala xarmee nangam wala ginaar gee nangam nga am fitu jóg parce que boo amul fit mooy leeroo non boo boo boo lëndëmee doo am fit mhm. boo lëndëmee booy dox lu lëndëm doo am parce que loolu dañ waaw moom mm. foofu laa bëgg musul ku musul ku musul mooy la ñu maanaam jànk jànk bu xamagul dara waaw bu fas tëddee bu ko joggee mën na wér mën na wér mais du ci jamono ji dëgg la dëgg la ah nee naa ta fas woo fi tëraloon ah. di nga joggiloo fukki xale te fas wi du jóg nga ni naata dëkk bi toj na toj na xale yi téléphone iPhone ah. ak cheveux naturel ah. ak dàll bu rafet ak mbubu moo tax ñu jaay seen dignité yëpp. yooyu yëpp nag boo war doo am ko fas woo fi tëraloon da nga koy mujj na sama doom ji boo war am ko. boo war gëm yàlla xaar yàlla toog. yàlla li mu yor bari na ci lépp da koy maye. wallaay mbaay boo war doo toog. billaay ku baax di ku fekk la ci. wallaay mbaay jox la ci portable yi. jox la ci yu baax di war ba tey waaye xale yi léegi. waaye xale yi léegi de moom li ñu ah, dañu bari projet. xanaa am nañ de xale yi am nañ fi de waaye ñu delloo si leen rek. di yeddaate di wax lu baax. Mm-hmm. comme ni ñu toogee tey ci télé bi. ni ñu ko habillé nii ni mu rafete sama doom ji faama toog. Mm-hmm. ñuy waxante lu baax yi. dëgg la xale nga toog ci këram dinu diglu. benn kàddu rek mën na ko tax a baax. Mm-hmm. su nekkoon ci lu bon mu dëpp. ne ah message bii géwél yi lancé de am na maanaa ca àddina day dox. ca mën naa dem ba toog ak sama jëkkër lii dab ma ma jóg def lii. kon ñun bu nu tàyyi. ndax comme que ñoo jur doom yi te ñoo leen di teg ci yoon. nan leen jàppale ku ci nekkoon dëpp ku ci mm. duggagul yàlla boo ci dugg ndax loolu amul sens defet la ci jedde jekkul defet la ci ñëpp kooku defet la ki la koy def defet la ci moom yow mi koy def defet nga te saa yoo jógee wàññeeku téeméeri kilo ko doon def na ko ba <laughs> xalifa dama bëggoon laaj euh, oustaz euh, euh, doom bu juddu ci mooy mm. maanaam jigéen bu fekkee dafa dem génn ba loolu dab ko comme li ndaw si doon ragal doom jooju naka lañu mën a xoolee ci ci lislaam nekkinam <laughs> jërëjëf euh, soxna soxna Fama euh, xam nga doom bi juddu ci mooy benn ci ñaar moomu na nekk ya imma ku góor ki mu juddoo ci moom wala mu nekk ku jigéen ki ci biir société sénégalaise bu fekkente ne ci ku góor ki la nga xamante ne am na soxna ba pare am doom hors mariage lu oyof la ci biir société bi or ci lislaam oyoful soo jëlee ci ku góor ki su ñëwee ci ngiru imam Malik le temps que mu nekk ku njaaloo rek doom joojee duñ ko ko askanal résultat bi mu ngay feeñ ci biir société bi bu ku góor ki faatoo ba ñu toog di miiras doom joojee da ngay gis ñu ko wasante ne doom ji mu ko amee ci lu dul yoon xale boobu du doon foofu lay feeñee ci ku góor góor mun na nekk ci biir mariage am mu am doom ci biti ngénte ko koñ bi kenn du xam mais bis bu génnee àdduna rek taw jëpp bagage yi bu ko defee bu ñu toogee di miiras da ngay gis soxna si dalay wax ne sama borom kër am na doom joo xamante ne juddoowul ci buum xale boobu bu ñëwee toog léeg-léeg mu nekk choc ci xale bi parce que bu ñëwee toog ñu indee ngiirug imam Malik bu boobaa xale bi du doon parce que loolu moo tax bu njëkk ñi mag bu fekkente ne góor dafa am doom ci ci njaaloo xale bi duñ duñ ko askanal baayam da gis santu yaayam lañ koy jox dele le début nga xam ne xale bi du du am relation ak papam yaayam rek lay kii lool moo sababoon loolu mhm. parce que ci ngirug imam Malik góor bu amee doom ci lu dul mariage kenn du ko askanal doom ji léegi nag bu fekkente ne jigéen la mu am doom ci buumuk sëy benn moo mun nekk ya imma jëkkëram reconnaître doom ji jëkkëram reconnaître doom ji bi jigéen a li dab ndaw si dab na ko mu jëlee ci ëmb moom jigéen gi ka jigéen gi su fekkente ne dafa nëbb mbir mi ba mu wasin mu ñëw jébbal ko boroom këram borom këram jàpp ne moom moo liggéey moo travaillé moo moo moo moom moo moom grain bi ba mu ba mu ba mat mu ku jigéen ki noppi waale ko bu boobaa doom ji dañ koy askanal borom kër gi même bu fekkente ne ki seqoon ak mooy euh, monsieur monsieur le réalisateur moom bu fekkente ne ñëw na di wax ne sama doom la di revendiquer di revendiquer islamiquement su fekkente ne kii borom këru ndaw si moom nangu na ne kii sama doom la bu boobaa euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, réalisateur bi dañ koy xañ parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ki nga xamante ni moom moo juddoo moo doom bu juddu ki moomoon lal bi la ñuy askanal doom ji. kon daal ku dem loolu dal la boo ñëwee. mën nañ jàppale sa jëkkër loolu ah, benn kaala loolu benn kaala. ma loolu benn kaala. Mm. nag ku jigéen ki def loolu. moom du mucc de et loolu moo mat a bàyyi xel pour ah, jigéen bu nekk ci parce que yonent bi di alayhi wa sallam dafay wax ne bépp jigéen bu rax ci askanuy jàmbur ku ca bokkul jigéen jooju du xeeñtu xeetu aljana hmm. cest à yomb na kooku dina regle problème am fii dina régler problème am fii mais fee ñu jëm te foofu lu mat a bàyyi xel la baax donc loolu benn la ñaareel bi moo di ne loolee dab li nga xamante ne moom mooy ki jigéen ki fekk na borom këram lu mat at ànduñu dafay xew ci biir société bi nit ñi indi ne noonoo jigéen bu amee doom ci buur buumuk sëy rek bu boobaa doom ji jëkkër ji moo ko moom loolu mu ngi nekk ci kaaw bu fekkente ne jëkkër ji nangu na ko mais une fois mu xam ba pare nangu waa jëkkër bi mu ne sama doom la mais fekk na xam na ne du doomam bu boobaa moom cest dire fii may fii li may wax moo di ne ku jëkkër ki moom nangu ne ne kii sama doom la parce que sama jabar ko jur bu boobaa ci l'islam comme que moom moo moom moo demoon ca jàkka ja non non moo demoon ca jàkka mm-hmm. ñu takk sëy ci turam ci papier mariage li ñu bind mooy diw mooy jabaru diw donc lu génnee ci toolam moo waaw bu fekkente ne moom loolu la d'accord léegi nag bu fekkente ne ku góor ki dafa wax ne du sama doom bu boobaa xale bi kenn du ko askanal kii ci kaw bu dee nanguna foofu lañ ko koy as mais bu taxawee ne du sama doom bu boobaa kenn du ko askanal doom ji bu boobaa loolu la ñuy tuddee ci wàllu fiq li aan mooy ne su fekkente ne ndaw ku góor ki dane juruma xale bi ndaw si ne ko yaa ko jur ci lislaam dañ leen di indi ci pénc mi suñ leen indee ci pénc mi ñu ne ku góor ki waatal mu ne billaahi juruma ko billaahi juruma xale bi billaahi juruma xale bi billahi juruma xale bi billahi su fekkente ne maa jur xale bi yal na ma yàlla rëbb ndaw si tamit mu ñëw ci pénc mi ne billahi yaa jur xale bi billahi yaa jur xale bi billahi yaa jur xale bi billahi yaa xale bi billahi su fekkente ne juróo xale bi yal na ma yàlla mere su ko defee loolu la ñuy tuddee li'aan bu ñu xësee waatante ñoom ñaar dees na tàqali sëy bi foofu lay yem. ñoom ah, ñaar ah waaw na ba pare moom. seen sëy foofu lay yem. munuñoo defaraat diggante bi waxtaan ba ñu dajewaat parce que yonent bi sallallahu alayhi wa dafa attene ñaari couple yi nga xamante ne ku góor tuumaal na li nga xamante ne moom mooy ku jigéen ki ne ko li nga xam ne ko juróoma sa doom bu boobaa ñoom ñaar bu ku benn moo mun a am ndaw si ne wax na dëgg ay la te boobu beneen atte la <laughs> wala mu taxaw dëgëral boppam ne ko yaa jur ku góor ki ne ko juruma ko bu boobaa dañ leen léegi penc moomu buñ ko doon matérialiser léegi ci àddina ak modernité bi am mooy lan comme tey bu ñu woote woon ci benn salon diggu kër gi wala yooyu ndax penc moom bareetul ci ndakaaru bokk par exemple mbokk yi ñu convoqué réunion daal toog mbokk yi waaw wala ñu dem tribunal loolu day métti de euh, waaw euh, mbir yi muy wax dis na dis goo xam ne. c'est ça fii ci Sénégal lijjanti wuñ ko comme moom ni ko waxee ci diine. dañ koy lijjanti ci biiru mbokk dañ koy lijjanti ci ay. mbiru xarit xarit dañ koy lijjanti ci arrangement. Mm-hmm. Euh, am na aussi bu ci wax boo xam ne jàpp naa ni xëy na maître Pape Sène moom mooy gën a bien placé pour wax ci mais xam naa ni am na neneen nuñ koy attee fii ci Sénégal. Euh, xam nga moom miraas bi mu wax ci doom ji nga xam ne dafa juddu hors mariage mu ne euh, dañ koy dañ ko ciy génne fii ci Sénégal am na beneen système boo xam ne dañuy dem tribunal wuti certificat d'hérédité bu dee papaam déclaré woon na ko reconnaître loo ko ne dañ koy boole ci certificat d'hérédité bi et atté bi nga xam ne moom la loi Sénégal di atte pour miraas bi moom da ciy bénéficier wu. loolu dama ko leeral pour ci biir kër yi comme li ci biir kër li ci biir sëy dañuy jàngale mm. sinon nit mën na ci jàpp dara rek jàpp ne bii rek a am ba am ñoo xam ne parce que am na ñoo xam ne ci émission bi la ñuy xool pour poser yenn débat yi donc am na beneen boo xam ne bu ñu defalee ca tribunal certificat d'hérédité bi ña judd ca sëy bi ña ca judduwul ñëpp après lii nga xam ne moom lañ bàyyi ñoom noonu la ko tribunal di àtte parce que mbirum héritage da am ñoo xam ne dañuy opté def ko ci l'islam am ñoo xam ne am ay contentieux am na ñoo xam ne dee nañ ay depuis année soixante yi soixante yi ba léegi seen seen mirage jeexagul léegi xalifa demee noonu bëggoon laaj euh, pour yow balaa da nga bëgg a àggali waaw li ma dama bëggoon ñëwaat rek ci euh, awa ARCO waaw pour wax ne ñoom dañu inspiré wu ci seen milieu culturel ak showbiz pour def sketch bi effectivement ku góor ki moom dóorkat bu mag a mag la mhm. te dafa xam fi mu ni muy dóoree xam fi mu dóor mu dóor mu dal loolu dafa am ci mi ci milieu yi ñu nekk parce que jigéen parfois dinañ ko nax ci li mu gën a bëgg moom mbiru siw la bëgg mbiru showbiz ci lañ ko naxe am na beneen jigéen boo xam ne mbiru liggéey la bëgg moom ca lañ koy naxee <coughs> commerce parce que mbiru infidélité dafa am ay cause yu bëree bëri léegi ci ñi nga dota dajeel ah. ñoom est-ce que expliqué nañ leen expliqué nañ la ci góor wala jigéen ah? lan moo leen poussé ci infidélité bi. waaw xam nga fii ci Sénégal am na ci yoo xam ne siiw na ñu xam ko. parce que lu dem euh, dama bëgg a commencer ci boobu nga xam ne kenn du ko weddi parce que mi ngi am ci dëkk yëpp. parfois ñu ñu ñu jël benn cas infidélité ñu ne parce que jëkkër ji dafa absenté lu baree bari. waaw ñiy tukki di yàgg tribunal yëpp. wala ñu ne jëkkër ji absenté na. atta ngi wala lu ko ëpp newu fi ñu gis ne moom kat biir na. xam nga bukki biñ ko laajee kan moo kan moo kan moo kan moo sa eh, def yëfu saay-saay kan moo njaaloo dafa dem dafa jëmi dégg naa jigéen boo xam ne dafa biir ba ci nopp yi indi ko <laughs> wane ko kii dem ba nga xam ne jëkkëram newu fi ñëpp xam ne jëkkëram newu fi mu ëmb kooku jaratul ñuy société bi lu ne fàng la kenn du ko jeex donc loolu parfois xam nga mbiru sëy dafa am loo xam ne dafa laalan laalanteeg ni ñu mooñee nit doomu aadama muy am yëg-yëg ci biiram yëg-yëg boobu tax parfois moom mu bëgg am bànneex bànneex boobu pour mu gérer yëg-yëg bi mën na dem ba parfois yóbbu ko foo xam ne mën na mën na mooy moo tax sax ci lislaam ñu mu am àpp boo xam ne dañ leen ko àppal pour bu fekkee ku jigéen ki moom mënatu ko muñ mu mën ci génn te loolu du ko ci fekk am na ci ñeneen ñoo xam ne alalu àdduna maanaam koom bëgg a faj soxla wala bëgg luñ bëgg sobo naturel la tele iPhone

seytaane am nu mu fa demee. mooy dem mu am moment de faiblesse. mu dem ba loolu am ci. mooy comme séminaire yi ñuy dem ak yenn affaire yi nga xam ne jegante tam day yomb foofu xalifa <laughs> ah loolu tam bu ñu tàgg bu tàggoo séminaire coow li dëkk <laughs> xam nga fii ci jigéen ñi nga xam ne dañu nekk ci ci plateforme yi. ñoom ñëpp ku ci sa jëkkër tàggoo ni day dem da ngay dem séminaire pratiquement kër gi moom xam naa ni. ah mais oustaz loolu tamit dëgg la. ñu nekk ñoo gën a sévère sax ci bàyyi seen jabar dem séminaire. góor ñu am ay femmes cadre nga xam ne parfois dañuy war a dem séminaire wala ñu tàggu leen damay dem Maroc damay dem Dubaï damay dem feneen parce que exemple yi am mooy dem ba yàqu xel ba tax yooyu yëpp bu amee donte ci liggéey bi la bokk dañuy wax ne seytaane waxul dëgg waare yàq nam xel donc ñoom arko dañu inspiré wu parce que nit moom li mu gën a bëgg moom lañ koy naxee sama yaay wax na ni góor dafa bëri pexe waaye gis nga jigéen mu mor mu moyloo góor moo gën a yomb góor moyloo jigéen yéen yéenay wax na jigéen du rëbb sooy yéen yéenay wax ne waaye réalisateur bi ba mu rëbbee tam sooyul de non sooyul parce que ah. ci exemple bi ma wax moom dafa xam ku jigéen ki li mu bëgg fi mu door a baax nekk li nga bëgg mooy sa faiblesse jigéen ci li nga gën a bëgg ku lay nax ci li nga gën a bëgg la lay naxee ah. parce que loolu moom lay jaral danga bëgg a takk ay or foofu lañ lay naxee ci or yi da nga bëgg a nekk star ci téléfilm yi foofu lañ lay naxee da nga bëgg di voyager di dem di ñëw foofu lañ lay naxee parce que ku góor ki souvent bu identifier sa faiblesse rek mën na la fa naxee parce que li ngay bëgg mën na am sa jëkkër amu ko munu ko sa jëkkër bu ko amul rek nax la da ciy yomb donc loolu yëpp ay cause la bu ci muju bi may eh, jéxalé avant may jox ñeneen ñi moy parfois dina dem no xamné ku goor ki mi ngi fi soxna si mi ngi fi ku ji ku góor ki bëgg soxna si bëgg nako waye dafa am lu manqué moy sey bir néeg de ko bi bir néeg bi mhm. parfois goor dem ba mom limu mënon mënoon mënatu ko xëy na loolu c'est passager wala mu nekk loo xam ne c'est définitif mën na ko jëlee ci feebar mën na ko jëlee lu nekk souvent ku jigéen ki début bi moom da koy bëgg a day bëgg muñ di teg ngoram mais dina dem am foo foo xam ne bu fa tolloo parce que yëg-yëgu sëy besoin besoin naturel la besoin biologique la maanaam góor nit ni muy maree naan dem bëgg a naani ni muy xiifee bëgg a lekk noonu la yëg-yëgu sëy di mel ki nit ki nga xam ne dafa dem ba mat mas muskalaf ba gis yi nga xam ne moom mooy mandargal góor wala gis yi nga xam ne moom mooy mandargal jigéen moo tax yooyu aussi dina pousser jigéen di mooy fekk na borom këram moo mënul li mu mënul am na ñeneen ñoo xam ne aussi seen expérience ci seen jaar-jaar seen dund parce que jigéen bi nga xam ne avant muy sëy moom dafa am ay expérience doon na sëy am yu mu tàmmoon am yu mu xamoon xam nan la mel xam fan lay egg bu fekkee dafa tombe ci borom borom kër goo xam ne mënul ñi mu doon xam avant muy sëy loolu ñu mën moom mën na ko yóbbu ci muy xelam dem ci ñooñu parce que mi ngi mel ne plat boo xam ne mos nga ko am nu mu neexee ngay mos boo xam ne neexul boo deful ndànk sax xel du jóg ci plat ya nga doon mos mu gën a neex loolu aussi bokk na ci ay raisons yoo xam ne ah. gis nañ ko ci sunu liggéey. Khalifa nga ne plat bi. amul amul ci àdduna doomu aadama boo xam ne mm-hmm. mosul plan mu neex mm-hmm. plan bi continuer mm-hmm. mu koy namm c'est pas pour rien ñun ku ci nekk am ay plat préféré bu fekkee yow da nga ci benn plat boo xam ne mooy sa plat préféré te sa plat préféré boobu sa jëkkër mënu ko togg boo deful ndànk seeti ki nga xam ne moom mooy togg sa plat préféré. wuti beneen cuisinier. maa la wax loolu léegi nag euh, damay ànd ak régie ak euh, Fatma Diop ñu koy gërëm bu baax moom tamit ci coordination beek ñoom Momane Ndiaye dem seeti li nga xam ni l'infatigable Amadou Thiam moom la indi tey nee naa leen mbokk yi le public notre raison d'être Amadou Thiam dafa wër mbeddu ndakaaru yi am lu ñu indi loo xam ni fu ñu jaar seetaan ko dellu si waat ci plateau bi. infidélité nag euh, lu ko tax a jóg nag boo gisee loolu ñoo ñëw ba tey jii nii mu mën a meññi ci biir euh, ci biir population bi parce que tout au début parce que man dama gom ne lu ñuy wax li nit balaa ngay euh, ñëw ci sa jeunesse il faut nga caaxaan ba pare nga soog a mën a boo demee boo boo boo nekk responsabilité nga soog a mën a bàyyi caaxaan man damay wax ne déedéet nit bu commencé caaxaan ci jeunesse am tollogoo fen amoo fen fooy mën a mucc boo demee ba takk soxna nga mën ci mucc fekk da ngay mën a toñir sa bopp parce que dafa am dafa am lu am lu am ci doomu aadama mooy banneexu àdduna am nafsu loolu boo xasee ba dugg ci yow rek day jaxasoog sa deret manque mooy bon wax dëgg manque na ci euh, bon doylu ñàkk doylu tamit mu ngi si parce que parfois tamit ñee bu ëpp timi day indi infidélité parce que parfois mën nga gis euh, sa xarit mu am benn tenance bu baax ci copain wala si jëkkëram yow sa jëkkër tamit euh, bon defarul la ko wala sa copain defarul la ko léegi nga koy xool bu yàggee da nga uti leneen kon moom lu mu am. instant bi jigéen ñi ñoo doylootu jigéen ñoo doylootu ci wàllu kom-kom ñoo doylootu ci wàllu plaisir te sama genre yi yëpp bu ñu nekkee xale dañoo foo ba fu mu nekk seen sidit dafa bàyyi. instant bi boo nekkee jigéen trois ans quatre ans boo naanul comprimé wala naanoo dara doo ci mun ci moom dara. boo seetee léegi réew mi ñu fiy jaay garabu sexe yi dafa bari bu njëkk bi France eh, kii pharmacie rek noonu ko doon jaay mais léegi chaque jour nga gis ci TikTok bi wala ci tele bi ñu invité koo xam ne mu ne damay jaay garabu góor lan moo ko waral du jimbo bi de teel a nekk ci jigéen ñi rek di njaalo njaalo bu bari. affaire yi ci deux côté la parce que di nga gis koo xamante ne day nekk këram mooy toog. di toppatoo jëkkëram kooku day dem liggéey wàcc am fa jàmm de mais taxul day génn l'homme il est tout le temps insatisfait beneen côté bi nga gis ku jigéen koo xamante ne elle est indépendante day liggéey comme ni nga gisee ay femmes yi nga xamante ne dañuy daan seen doole du ñu togg du ñu yàq lépp dañ koy commandé du ñu toppatoo seen jëkkër bien vrai que seen jëkkër yi dañuy teela a wàcc ñibbi bu ñu yegsee seen kër du ñu fekk seen jabar lan moo koy waral seen jabar amul seen temps dañuy génn dem xooli feneen maanaam affaire bi vice versa la. je trouve que Ça ne devrait pas exister, mais quand on regarde bien, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc c'est soit la polygamie, soit l'infidélité, ce qui est dommage. Il faudrait choisir, soit la polygamie, soit on reste sur sa femme, c'est tout. jërëjëf l'infatigable Amadou Thiam moom nag mu dugg rek ci mbeddu ndakaaru yi wër lu am solo loo xam ni nit ñi wax nañ ci ñuy gërëm bu baax ñi nga xam ni euh, ñoo ci wax ndax nag lii la soxla ay xalaat yoo xam ne day jóge fu nekk rek mu muy lu am solo loo xam ne ñu ngi koy rafetlu Imaam. waaw dafay montrer tamit li nga xamante ne moom moo nekk ci société bi dégg nga nee nañ ne fu nekk lay boor bu nekk lay jóge et góor ñu bëri. ci buntuk lu leen lislaam daganal dañ fay pëtëxal pour def loo xamante ne jaaduwul. waaw foofu laa bëggoon nga ñëw. Eh, sànq xalifa mu ngi koy wax. mais heureusement bi mu utiliser ñaari terme ndoxaan gu metti moom mooy utuk coro mais fulla mooy labat. léegi l'islam moom lu mu wax ci côté boobu. l'islam li mu c'est-à-dire xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne takk leen ñaar ñett ñeent soo leen ragalee munoo leen maandu yem leen ci benn. xalifa wuyu oustaz waxul taxu leen benn de lu wax waxaatal ma dégg. soo leen ragalee. xale jigéen ñi dégg takk leen fan la commencé tonte compte takk leen ñaar ñett ba ñeent. am na solo oustaz. <laughs> Ah. soo leen ragalee bañ a maandu. donc na ngeen yem ci. kon benn bi moo daal. waaw benn mu benn moo mujjee. léegi nag foofu. l'islam certes. dafa daganalal góor pour mu takk soxna. mais dafa araamal ci góor pour muy doxaan di utuk coro. motax yàlla subhanahu wa taala terme bi mu utiliser terme bu am solo la mutakhidhi khidn khidn moy comme niñu tuddé maîtresse lol maîtresse du ko bëgg def li nga xamantene mom moy jabar comme jabar bo takul la rek moy maîtresse wa légui lol la yàlla subhanahu wa taala tere xam nga tay ji ni gor bi bëgg a def fulla dañuy xam ne da fay def fulla mais bu fekkente ne yow kumba yaangek numéro téléphone am lepp pour sa jox sa soxna bu waxé wala ku lay wax nga né non boy bi dama ko bëgg ñaata boy bi dama ko bëgg mo nek ay dossier yu ay rangalé rangale takku ñu ci kenn bi maana ben vis la bu nek seen biir pour né tay ji nañ doxaan ki ni pour jaar li nga xamante ni mais ki nga xamné ne dafa juk pour tak soxna da dafay dem tak soxna et l'islam lool moo tax lool loolu moo tax ci l'islam ndoxan du gudd tank lool la mag ñi sax daan wax ndoxan du gudd tank parce que si une fois yow mus nga tak jabar gis nga xale bi moo xam da ngay dox ginnaawam yóbbu wala nga toog gis ko mu neex la ay jikkoom bu boobaa demal nga fëgg bunt bi. mais dañ ma ne ci lislaam mhm. euh, labat boobu warul passer trois mois est-ce que lol dëgg la. lislaam li mu wax rek mooy ne labat du gudd tànk. ah joxewul délai. labat du gudd tànk. surtout ci ki nga xamante ne da nga ko gis bëgg ko pour def ko tànk mais li am ci biir société bi mooy ndoxaan gu metti moo fi nekk. ci bu bu jigen ñu waxe ñu ne man tak ñaar dagan na tak ñett dagan na tak ñeent cert tak ñaar dagan na tak ñett dagan na tak ñent mais ndoxan xalé yu metti lool daganul ci l'islam léegi ndoxaan bi nu mu war ci l'islam xam nga tay ji ni boy set jigen sur le cas un cas plus pratique xam nga tay ji ni damay wax ci bir société sénégalaise waaw tay su fekente ne da ngay gis euh, ben Ablaye ndjay gis na ben xalé machallah mu gis ko xale bi am na nu ko gisee moo xam ci jikko jila ci taar bi la ci kii nii dem na abordé ne xale bi wax na moom gis na ne xale bi nangul na ko li war a doonaat ci ci kii bi nii ñu tase li nga xamante ne moom mooy appartement meublé nii ñu tase li nga xamante ne moom mooy hôtel nii ñu tase bëri dañuy tukki sax ñoom léegi mhm. donc yooyu yëpp bu ko góor di def mu ngi jéggi frontière bi ko l'islam kii waloon te saa bu nit di jéggi frontière boobu rek loolu mooy sabab ab bis tarxiis daa di am et fii nii ci Sénégal xam nga nit ñi seen infidélité ñu ngi ciy ragalee ëmb génn ci mais fek ëmb génnu ci jàpp nañ na lu ñuy kila la te loolu moo gën a dangereux. du yàlla day baale wala. non problème bi du yàlla day baale certes yàlla subhanahu wa day baale. <laughs> certes yàlla subhanahu wa taala da fay balé mais damay damay damay inviter ñun ñëpp ñun ñëpp ñu méditer ben verset bu yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran yàlla da fay wax ni والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يلا من بوك bokk na جام نيغا خامتيني ñi nga xamante ne duñ ma associé kenn duñ ma bokkaale duñu du ñu njaaloo yàlla mu ne waman yafaal dhalika ku njaaloo wala nga faat bakken wala nga bokkaale yalqa athama am nga bàkkaar bu reuy bàkkaar bo xamantene ne yudaaf lahu al azabu yawma al bu alaxira bu nit ñi di am benn ci biir safara yow de ngay am donc lool bu ko yàlla subhanahu wa taala di wax mom moy ki jéggelé mais nak dafa ne illa man taba xam nga lan moy tuub ci l'islam tuub moo di ni yow da nga daan doxaan xale bu jigéen bu nekk parce que léeg-léeg yennu góor ñi du sax dañuy du sax dañoo bëgg a takk soxna mais dañoo am viisu wodd waaw dañoo am viisu wodd bépp jigéen boo xamante ne dafa jekk macha allah buñ la gisee ne ne waaw ku ku jur lii ku bind lii <laughs> tabaarakallah macha allah faaw ñu xam lu nekk ci ginnaaw sër bi une fois ñu xam lu nekk ci ginnaaw sër bi nañ ci keneen. toujours ci buntu. takk ñaar daa dagan takk ñett dafa dagan takk ñeent dafa dagan ñi nga xamante ne ñoo bëgg takk ñaar takk ñett takk ñeent ñooñu ñu ngay takk mais ñi nga xam ne ñoo bëgg a doxaan ñu ngay doxaan te loolu yàlla da koo xaraama. Euh, euh, euh, Ndeye Seck loo wax ci luy oustaz wax ak loo bëgg a loo loo indiwaat lu bees ndax. namoon nañ la nag faama waaw. ah wax day. kenn amatul loo ci kenn mënu ci teg dara xam nga waxu yàlla moom déglu appliqué rek ndax dégg naa ko léegi ci biir waxam mu ni boo moyee muy ku góor ak ku jigéen lislaam daf laa rey faama kon lislaam dina rey ñu bari dëgg la dina metti de bu doon ko may ñu defal la ko fii boo rombee ñu ni kee lislaam daf ko war a rey kon ñu bari ñuy xëy di la romb da nga da leen di gis ak seen ticket ñu takkal leen ko <laughs> waaw <laughs> mbaalu mbaalu réew mi ay cadavre yu dox rek a fi am. <laughs> mais réew mi ñuy dox genn wàll gépp dee nañu kon <laughs> lislaam rey na ñëpp. <laughs> waaw waaye sant yàlla rek. ndax lislaam moom léppam sutura la. yàlla moo njëkk bëgg koy suturaal nit. yàlla dafa bëgg kuy suturaal doomu aadama. moo waral am na lu ci lislaam wax pour boo nee mënu waroo tëb rek ni diw maykatu yàlla la. am na lu ci lislaam wax mi nit ñoo ci war a teg seen bët mais fooy doxee ba dajale ay juróom-ñaar nit ak juróom-ñett nit yu ko gisandoo mooy bi nga wax mooy sutura bi yàlla bëgg nit ku suturaal moroomam waaye yow yaa ngi jox dox ci town bi comme ni ko xale yi waxee gis nga li xew ci town bi xale yi nga xam ne yenn saay xëy na am na ñu mës a waxtaan ak yow mais jigéen ñi lu nu bon bon bon bon bon góor ñee leen gën a bon dag may hmm? nax <laughs> sa yaay tàcc na la de. bilaay góor ñi leen gën a bon. góor leen bon la. meer naata boo soloo rek génn bala ngaa dellusiwaat di nga gis téeméeri nit ak juróom fukk ñu ni ça na nga def ya ñu manqué ñoo xam ne boo leen toppee sax dan lay matadi waale parce que danoo manqué ñoo gis jigéen ju leen romb dem mm. dellusiwaat ñu ko boo leen toppee ñooñu ñoo lay manqué waale loolu moo waral jigéen ñu bari ñu yàqu góor ñi ñoo dugal ci seen bopp mm. loo xamante ne nii liñ fi joué léegi nii lu am la. lu am gis koo xam ne ñeenti jabar la yor. takk takk suuf luy appartement meublé dugal ko ca. di dem ca kamu takk takk suuf am na ñoo xam ñaar la ñuy takk takk suuf te yor na ñeenti jabar. yaa ko gis mais mer naata man damaa génn ci réew mi. Hmm? mais nag accuser góor ñi rek day yomb. takk suuf bu amee rek ku jigéen ki daf ko nangu. góor kese mënul def takku suuf. nee ah, ko doo boo ragalee sa jabar faaw nga def takku suuf. waaw waaw takku suuf tëj gis ku yor jigéen jabar takku takku suuf. mais takku suuf bi moo doxaan bi tam oustaz. non takk ah, suuf bu fekk suuf bu fekkente ne eh, ku am ñeent la lool moom mbonte la. ah bu fekkente ne ku am ñeent ba pare takk suuf loolu c'est autre chose. ñaareel ba moo man bu ñuy wax ni daf may gën a wanewaat taaruk lislaam doo ñu comprendre lu taxoon yàlla doon wax ne jigéen taaram na ko fésal boroom këram gis nga def fok nit ñi ñu xam euh, sëñ xalifa nit bu gisee lu rafet na rafet na su gisee lu taaru mu ne taaru na yàlla subhaanahu wa dafay wax ne jigéen ñi bu ñu fésal et il a utilisé waxul bu ñu taaru mais bu ñu fésal mais bëri na ci biir li nga xamante ne moom mooy jigéen joo xamante ni lii nit ñi ñu koy apprécier ci biti su fekkente ne appréciation boobu du ko am ci biir këram loolu voilà tamit bu koy yóbbu pour mu miinante góor ba dem moment de fop ba moment de faiblesse ñëw seen diggante ala sabilil misaal par exemple su fekkente ne ndaw si dafa sañse sañse ba mel ni perle génn ci mbedd mi ku nekk ci mbedd bi naan ko macha allah wax ko wax ko wax ko jigéen ni ko yàlla bëggee dafa bëgg ko xamante ne da koy apprécier su dellu si waate ci biir kër gi te kim fa nekkal ci biir kër gi kooku gisul lu jug gisul lu kii ni bo léttoo gisul boo soloo gisul mu fekk fa tamit jigéen joo xamante ne léeg-léeg tamit jigéen ñi du ñu sañseel seeni boroom kër ñoom bu ñuy génn rek la ñuy sañse Oustaz yaa wax lii accusé jigéen ñi ni mais constat bu ma partagé la ah na ay góor ñoo xam ne sax dañ ciy mer dañ ciy frustré wu. gis ne ku jigéen ki daal moom fii ak génnul mi ci biir kër gi dafay bàyyeeku. toppatoowul boppam jëlul benn soin. Hmm. mu jékki-jékki gis ko mu war a génn mu nekk ci seetu bi ma nga ca fu nekk ma nga ca ma ngay tànn ay yére di teg di parcelu lépp daal loo xam ne day taaral jigéen moom ma nga ca. dëppoo perruque bi. bëri na ay góor ñoo xam ne dañuy fiir naturellement sax dañ ciy ñaaw njort. mais nag am na yere yoo xam ne kenn mënu koo solo sa jëkkër ci kër dafa diis. waaw ay yenn yére sañse yi dafa diis kenn mënu ko solo sa jëkkër. waaw xam nga bis loolu xew rek nga ko mën a yóbbu. <laughs> mais oustaz. a xew nga ko mën a sama garam am na yére yoo mën a yére. waaw ah, ah, loolu am na. et puis man xale yi ma gis léegi nag. mais kenn mënu cee dëkk. a ma wax nday sekk xale yi ma gis léegi eh, ci ni ma leen gisee xale yu yu baax la ñu yu nangoo sëy ni ngay d'accord ci ni am na xale yoo xam ni ñi ngi def lu dul noonu mm-hmm. noonu la ci ni am na xale yoo xamante ni seen jëkkër rek la ñu bëgg dëgg la jongoma lool mm-hmm. bëgg sëy sëy ak seen jëkkër set wecc yem fi leen seen jëkkër yem loo te man taamu naa xale buy sëyit ba mu bari ay xarit na sa jëkkër nekk sa xarit fi mu la bàyyi bu wàccee fekkaat la fa nga toog parce que mariirandoo yi dafa bari dëgg da lay yóbbaale ak yóbbaale bi di nga toog ki sa roq di sëyal sa jëkkër am intention bu baax mais ñay ñëw di la fekk si ñooy ñëw raxas sa bopp te jigéen boo yóoram diisul jigéen dafa oyof yóor dafa neex a yóbbaale kon nanu jàjjuwaat xale yi ca xam ni sëy ay caaxaan ah, ku nekk ci loo war ta nekk nga nga bàyyi ko ca jàpp seen jëkkër yi sëyal seen doom yi ndax teraanga ba teraanga jeex sa teraanga dooma ci dàq mm-hmm. yaay naata dugg nga nag ci li nga xam ni moom la ñuy wax recommandation yi yaakaar naa euh, Fatma bu fekkee ne euh, maître Pape Sène mu ngi en ligne mën nañu dugal li nga xam ni moom mooy appelam maître Pape Sène waa soxna Fama. maa ngi leen nuyu bu baax di kontaan ànd yow tey encore ci biir émission li ci biir say dalal jàmm. waaw soxna Fama ñu ngi lay euh, nuyu di nuyu beaucoup téléspectateurs euh, télévision nationale yëpp di nuyu également sa invité yi euh, rawatina suma xarit Khalifa toujours ma koy wax di nuyu imam wala oustas bi nga xam ne teew na fi te ñu am lu bari lu ñu jàngat.

waaw mais mais mais am na lu jiitu article 329 parce que xam nga article 329 adultère lay mais comme dañuy wax infidélité article 150 code de la famille dafa am solo parce que dafa article 150 code de la famille. waaw daf ñuy indi lu ñuy wax le serment de fidélité ci couple yi mooy dafay wax ne ñaar ñiy dencante kenn ku ne da nga am obligation de fidélité envers l'autre loolu lu am solo la te obligation maritale mooy maanaam képp koo xam ne ni wàccoo nga ak obligation boobu ci ñaar ngi dencante rek loolu mën naa indi ñu tas ci sëy bi. waa mais loolu est que loolu est-ce que amul contradiction at ku bëgg a takkaat beneen jabar en oustaz ma bàyyi la nga waxtaan ak maître Pape Sène <laughs> parce que moom bu fekkee évoqué na article cent cinquante boobu te ñun góor ñi diine bi may leen ñu takkaat jabar Euh, serment de fidélité boobu ngay wax est-ce que foofu mënuñ koo mënuñ koo waxtaanee. bu fekkente ne loi bi définir na lan mooy fidélité. waaw boobaa du am du am problème. maître Pape Sène kon définiral foofu oustaz mu ngi laajte lan mooy fidélité pour yow. waaw xam ñun suñu suñu code de la famille définirul réellement lan mooy fidélité dafa wax ne ñaari way dencante yi dañu am obligation de fidélité réciproque mais bu ñu ñëwee ci article 166 bi nga xam ne mooy list cause de divorce yi. daf ñu indil adultère comme cause de divorce te adultère ñun ni ñu ko jàngate mooy violation bi nga xam ne violation serment de fidélité entre dans dans dans un couple te tey moo tax nga indi article 329 pour indi tontu parce que article 329 gannaaw ba mu ñu indilee adultère daf dafa dafa ne nag am na loo ni ci duñu ko appliqué ñi nga xam ne dañoo nekk ci walum sëyu tradition ma nga xam ne tradition daf ko nangu donc pour répondre ci sa question bi xëy na buñ fa duggé infidélité mën na bañ am sens bi ñu koy wax ci walu polygamie donc mu melni tay infidélité boo bu fekkee da nga nekk ci infidélité kooku mun na nekk cause de divorce ñu jaarale ko ci lu ñuy wax adultère parce que adultère mom 329 bi nga wax mom moko wax dafa wax ne que adultère ñiy dencante kenn ci ñoom rek kenn ci ñoom moom moo ko mën a dénoncer mooy maanaam nit mënul dagge ca langue ga rek ñëw nekkat diw dafa def adultère déedéet ku góor ki wala ku jigéen ki nga xam ne ñoom ñaar dañoo nekk ci biir néegu sëy kenn moo ci mën a jóg pour dénoncer wax ne am na adultère donc loolu article trois cent vingt neuf moo ko wax mais article trois cent trente bi ngay wax moom moo indi nag sanction yi Les bu fekkee nit ki dañu ko ne da nga infidèle parce que dañu ne ku def adultère infidèle mais mën nga infidèle te doo def adultère mais bu fekkee tey da nga nekk ci infidélité boo xam ne ni dafa glissé ci adultère ñu tuddee ko adultère mu nekk adultère su boobaa ñaari sanction la yoon prévoir benn bi wax naa la article cent soixante six mooy mën na nekk cause de divorce mooy maanaam kenn ci ñi dencante amna sañ-sañu gannaaw ba nga xamee ne que ni nemmeeku ne nak ci mu nekkal mom dafa nekk ci situation d'adultère te lolu infidélité la mom daf koy yóbbu ci yoon pour ñu tas bi benen bi ay sanction pénale la mais fofu également dañuy léral téléspectateurs yi euh, adultère article 330 bi nga xamné mom mo koy punir amul peine d'emprisonnement moy manam tëdd de amu ci. waaw amende peine d'amende la prévoir. Hmm. Allô? waaw ma ngi lay déglu bu baax amende la. prévoir waaw ñuy léral ñuy léral fofu né peine d'amende le prévoir te peine d'amende boobu peine bu néew la.

ba pare yow lay teg ay daan maître Pape Sène également mën nañu parallèlement nga def une procédure pénale pour dem ci li nga xam ne moom mooy amende bi léegi nag bala ñuy tëj rek gannaaw ma la gërëmee sant la bëgg nga ñëw ci li nga xam ne moom mooy preuve yi nga xam ne moom la loi di di di laaj waaw xam nga d'abord il faut ñu leeral ne adultère kenn rek moo ko mën a dénoncer mooy ñi nga xam ne ñooy sëy kenn ci ñoom kooku nag su koy def comme dañoo nekk en matière pénale kooku su koy def moom effectivement mën na indi façon preuve bu nekk bu pour wane ne lii kat adultère la parce que moom mooy denc ki nga xam ne moom lay jiiñ adultère mais nag dafa am beneen façon preuve goo xam ne nii ki ñu naan complice parce que xam nga adultère soxna Fama buñ koy wax ku kenn ku nekk ci buumu sëy la moo xam góor la moo xam jigéen la ak keneen koo xam ne nii ñoom ñaar amul dara lu leen lié keneen kooku nga xam ne nag amul lu ko lié soxna si wala ku góor ki kooku complice lañ koy wax maanaam kooku complice la. mais kooku tam mën na ci am problème complice boobu tam mën na am problème ci programme boobu. waaw parce que moom problème bi muy am mooy daan yi ñu daan ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne dafa def adultère daan yooyu lañ koy daan mooy amende bi. mais moom ay preuve am bokkul ak preuve yële ñuy mën a indi parce que bu fekkee complice bi la euh, code de la famille ci article trois cent trente et un dafa wax ne preuve yi yoon nangu mooy benn flagrant délit mooy maanaam ñu jàpp la ci poos su boobaa moom yow complice bi ki nga xam ne yow lañu nekk complice kooku yoon dalay daan mais ak beneen bi nga xamee ne que ni ki mu ko seqal te nekk ci buumu sëy moom moo def aveu wala mu bind bàyyi wax ne kat diw mi kat man mën maa ngi biral na seq naa ak moom su boobaa dañuy am firnde ne kat diw moomu complice la mais bu fekkee ki nga xam ne moo nekk ci buumu sëy la jëkkëram di ko topp adultère kooku moom jëkkëram yoon may na ko si la liberté de la preuve façon vous vous ko le prouver vous prouvez mais flagrant délit avec de même meek kooku moom ci complice bi la ko yoon jëmale pour ñu mun ko indi li nga xam ne moom mooy preuve jërëjëf jërëjëf maître Pape Sène ñu ngi lay sant di la gërëm comme ni ma koy waxee yow daal saa yu ñu ko soxlaa rek maître nga yombalal ñu ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf bi nga fi nekkee léegi nag li ñuy def mbokk yi mooy dugg ci li nga xam ni moom mooy euh, dund naa ko mbokk yi nee naa leen lépp lu ñu fi waxtaanee dañuy jëli koo xam ni dund na ko ñu ànd seetaan koo xam ni moom jabaram moo ko def tey li ñuy waxtaanee Fatma Diop dama nekk sama soxna yàlla may ñaari tout temps yu jigéen ma bëgg ko trop te bi ñu ma koy may yaayam dafa génn àdduna te yaayam ak sama yaay xarit lañ sama yaay jël ko may ma ko muy sëy ak man ñu si ñaari tout temps ñuy dem dem dem def ñetti at ñetti at man ak moom waaw première fois bi ku mën a sëkkal ba si man parce que xale jigéen bu ko gëmlu woon ni dafa tas ñëw ba si man laaj ma maa ngi ko lay wax ne mu ne ma ba ma ne maa ngi jégalu mais man ak sa soxna tekki na jaar moom xale bu góor moo ko wax lii may dégg te xale bu jigéen weddiwul loolu ma dem dem dem un sama xarit ma ne bu dee bëccëg foofu mu ne xamal ne ma jigéen la dafa juum dem ba dëkkam jëli xale jigéen bi indi ne ma jigéen la da nga suturaal te nga jaamu si yàlla te bu dara sax. ñu xool si xale yi man d'accord ak moom ñaari xale jigéen bi bàyyi mu seet mel ni dara xew nekkaata ak moom di si jaamu yàlla parce que jullit laa bañ nekkee nekkee nekkee nekk six mois encore nekkati moom it mu ngi nekkaat ak benn xale bu góor di sëkk ak moom waaye dina ko xanaa amu amu borom kër mënu ko sama borom kër dañoo tàggoo mën ak moom mais man maa ngi si kër gi parce que yaayam ak sama yaay xarit lañu te amu fu ma dem moo tax ma nekk si kër gi lii nag doy na waar malheureusement nag temps baa ngay bëgg a jeex gis naa Mariama Dramé ma ngay jékki-jékkal euh, bagage yi pour rek mën a dugg ci li nga xam ni moom mooy journal 23h bi Khalifa kii moom euh, dama lay bàyyi rek nga indil ko li nga xam ni moom mooy euh, li nga koy mën a conseiller. waaw kii de dama koy masaw bu baax parce que xam naa ne amul lu gën a metti ci yëg-yëg ci góor nga am firnde ni sa jabar mm. daf la mooy rawatina. ki mu ko sekkal ñëw wax la ko ñu lijjanti ko ba pare yow nga ba sa muñ ndax xale yi comme ni ko xarit bi mm. waxee ku jigéen ki nekkalaat ko ci loolu natt bu mag la ci góor parce que yooyu bokk na ci gën a metti ci li mën a dal góor am na xëy na sax moom dafa am dal mais am na góor ñoo xam ne mën nañ tàggoog seen sago ba mën nañ def naka sudul noonu mën nañ ko def soxna si leen ko def mën nañ ko def également ki ñu ki ñuy wax complice ki mu ko defal lool donc lu metti la léegi nag li nga xam ne gis naa ko ci mooy dafa mel ne dafa nekk jikko ci ku jigéen ki tàmm na ko bu njëkk ba nëpp nëppal nañ ko hmm. jàpp ne accident la hmm. ñu xool ci xale yi waaye ba mu ñëwaatee daf ci delluwaat xam nga loolu toll na foo xam ne jigéen bu ko defee rek lu ci bëri day dem ci xelu ñi nga xam ne xam nañ gravité bi ci société sénégalaise xam nañ gravité bi également ci ci l'islam donc bu ji bu demee ba egg fa rek ba eggaat fa rek damay jàpp ne man ñetteel mën na am ñeenteel mën na am maanaam li tubaab di wax récidive léegi nag moom mooy xool ndax da koy mën a muñaale mm-hmm. di moom wala muñu ko mu tàggoog moom mais li nga xam ne daal mën naa ko wax mooy comme jot nañu compter benn ba ñaar tekki nag xëy na sax am na yoo xam ne xamu ko bu fekkee ni moom mën na ko mu nekk ak moom noonu parce que faama nag am na Sénégal fii ñoo xam ne xam nañ seen jabar ne da leen di mooy terewul bugguñu ko bàyyi. dañ waaw man xam naa kaa yu mel noonu hmm. yoo xam ne ñoom xam nañ seen jabar xam nañ ñi yemul xam nañ ñi ma ngay def naka sudul noonu ñu ngi koy métitlu mhm. ba pare di ko muñaale ci sëy bi bëgguñu ko bàyyi donc moo tax nit ku nekk ak li nga mën a muñ ak li nga mënta muñ mais daal lu méttee ko dal et loolu yëpp nag li koy indi mooy jaar-jaaru ku jigéen ki mhm. passé bi parce que yu bëri daf ci am euh, oustaz mi ngi wax valeur parce que nit ku nekk dañ lay mooñaale ak say valeur say jom lu nekk ba mu nekkee xale ba ba muy màgg parce que ñun dañ koy waxtaanee rek moment bi mu amee fekk du moment boobu la ko defar mu ngi tàmbalee ca fa mu jaar nañ ko yaree expérience yi mu am ci àdduna loolu yëpp da ciy compter ci moom ni muy taxawee mm-hmm. léegi dama bëggoon balaa heure bi di gën a jege jox ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Seck mu joxe recommandation joxe li nga xam ne moom mooy li mu xalaat ci ci bagage yi ñu daal di bëgg a tëj nag. mais Ndeye nag da nga war a yëngal jamono nag doo jóge ba kees. man sama yaram dafa daw bernata wa li daw na yaram de wa parce que nit ku dund li dafa metti ñu delloo la sa jabar ga muñ ta ca kenen bokkat ak mom ben lal ba mm. deggat ci yenen boo jabar mom man suma don gor man mm. duma sey ak yow deug la de koku mom, bàyyi ko rek mu dem xamne tam na mi ngi deretam mm. ko bayyi mais nit nga def lo xamne du mom ci ndayam la wala ci ay mamam mm-hmm. yaa ngi ñu naan diw mm-hmm. li muy def ci deretam la ne mm-hmm. tàmm na ko mooy boo xasee ba def mm-hmm. doom ji nga jur mënoo fexe ba du moy wallaay dëgg la sët bi dagge ci yow mënoo fexe ba du may li gën a garaaw mooy mooy yàlla indi say doom ñu lekk mënoo fexe ba du mais yàq nga sa famille yàq nga sa deret mm-hmm. mooy rek yaa réeral nga puso ba barke Serigne Bamba jërëjëf kontaan nañu ci ñëw bi moo tax ku ko man ta ku ko ku ko mën a bañ a def ak lu mënti xew ci àdduna loo mënti dund bàyyi fa rek moo gën a rafet. jërëjëf man dafa ama xam. li nga wax am na ñun tubaarikàlla ay géwël lañu. Mm-hmm. ñun dañuy dem ci programme yi 3 heures du matin la ñuy wiññeeku 4 heures du matin. léeg-léeg julli fajar ba pare ñu doog a sonn suñuy bunt kër. Mm-hmm. sangu ba set jàll ci sunu ginnaaw yi borom kër. ah mooy yàlla ah, walaay dëgg la. te nag lu na la ñuy gis. Mm-hmm. ay dunu ma yàlla yéen géwël yi. yéen da ngeen baax eh, soxna naata. Wali may tago na damo bugon kam nga nang yanggal nagsalbi. Damo bugo ustaz ta atago. Ah, ustaz nang mo iki averbi. Kam nga mo maferbi. Leg-leg mo bagas salar ni kusa. Waye fi di nag jamal. Khalifa tago. Bu ko defé yeen yeenay mu jembir mi. Fekk mom mu jog. Waa ustaz nang mo na horat. Ustaz nang man na to. Ustaz firi li ngay firi ñu yewi la. Ustaz firi li ngay firi ñu yewi la. Oustaz Imaam. Oustaz Oustaz 2.0 la. passé nañ la parole Ousmane. Ah, gisoo sànq bi mu wax appartement meuble yi hôtel yi yi ñuy daje yëpp xam na ko. ah ah, ah mais Oustaz xamul yoon nag. da koo firi ñu may Oustaz eh, da koo mooy dafa Oustaz jamono la. ma ne Oustaz su la mais li yàlla wax la jàng. mais defu ko mais li yàlla wax la jàng. moom la ñu firi moom noonu la mënee yeneen ustaas yi. lu tax mu ah. mënee leen mooy dafa xam jamono xam ah, xale yi. xam fi jamono la. parce que <laughs> diine moom boo ko mënul méngaleeg jamono ci interprétation bi rek. moom am na ñeent waxatul dara moom dara la waxatul ustaas firi li ngay firi wax li ñuy ni tey tey xalifaam nu ko jàppale quoi. <laughs> est <laughs> dafa wut secours. secours léegi euh, soxna Fama maa ngi jaajëfal sama jigéen ak euh, sama yaay. fi nga dal ñu war a ko jeexalee dafa am solo muy recommandation. bu ñuy def recommandation moo di ne gis nga mbiru sëy nit ñi dañoo war a xam ne lëkkaloowul ak àdduna rek dafa lëkkaloo ak àllaaxira première recommandation pour ñu defaraat néegu sëy yi gis nga lislaam dafa tënk nit ki ci wàlluk mu nekk fidèle lu jiitu muy am boroom kër lu jiitu muy am li nga xamante ne moom mooy soxna góoru jullit dafa war a takk ñooram ba nga xam ne ci biir néegu sëy rek la koy xamee noonee la jigéen war a takkee lafisëram ba nga xam ne ci biir sëy rek léegi nag suñu demee ba nit ki dugg ci biir li nga xam ne moom mooy néegu sëy géñoom daa di yolom wala lafi fi sëram di yolom laa am na problème parce que sooruñu li nga xamante ne moom mooy àllaaxira ci benn jamono joo xamante ne nit ñi ragalatuñu njaaloo xam nga lan la ñuy ragal jëlee ci ëmb la ñuy ragal fekk jëleewuñ ci ëmb rek pour ñoom defuñu lu garaaw te yàlla subhaanahu wa li nga xamante ne boole na ko képp koo xamante ne moom mooy mag ba pare di njaaloo kooku yàlla du la xool àllaaxira yàlla subhaanahu wa taala du wax ak yow donc loolu la nit ki war a jiital ci digganteeg boromam subhaanahu wa taala seet yàlla ci lépp yàlla ci lépp lu ñuy def góor tamit soo dencee soxna ba mënatoo ko satisfaire parce que am na loo xamante ne jigéen du dem mukk kër baayam ba am ko fa dëgg te loolu la ñuy téye li nga xamante ne moom mooy sëy jigéen ñi tamit bu ñu topp dërëmuk àdduna ba yàq seen àllaaxira bi maanaa waa ji gëm naa ne léegi bantam comme la fi sër la mais nag mooy niinal sama ceebu ndey mooy niinal sama ceeb donc dinaa fi toog te nit kuy lekk xorom di naan li nga xamante ne mooy meew mës mos loo xamante ne lu neex la day jafe bis bu yëngatoo ci li nga xamante ne moom mooy dereetam mu kii loolu li ma bëgg wax rek moo di ne góor ñi tamit buñ demee ba tële nañu proposé seeni soxna pour ñu yéwénal leen seenu aljana ah, jigéen ñi tamit nañu yem ci seeni boroom kër respecté li nga xamante ne mooy barrière soxna ragal yàlla daal baax na ci dañuy sóor yàlla xalifa loo bëgg a tëjee waaw naa de ñu xam ne rek mbiru moy mom goor ak jigen ñom ñoci yam yem mm-hmm. donte fii ci société bi dafa ko oyofal ci goor dëgëral ko trop ci jigen mm-hmm. ma seetlu né également ñom euh fi ci société sénégalaise ñom askan wi lañ gëna ragal que li seen diiné di def mm-hmm. ñom ñu ngi ciy soor li société bi liñ leen ci xalaat buñ ko défé ñu japp leen wala leneen mu am nak ay conséquences yu bari yu ci mëna am conséquences yi mën na ci nekk ay feebaru sëy yoo xam ne kam moyul da ko koy jox mën na nekk également loo xam ne yow xaaroo ko woon par exemple jigéen boo xam ne dem na njaaloo ji jàpp ne kenn yëgu ko mu ëmb doom juddu ca mel noo xam ne dina ëlëm xel yi nit ñi di jiixi jaaxa waaw ndax baay bi mooy baay bi jërëjëf bu amee ku mu ndurool ci koñ bi nag coow li gën na jërëjëf <laughs> léegi fi may jeexale waaw kii kii xam nga dama wax cause yi sànq ci début bi. waaye nag heure baag may jàpp de boobu ba tey ñu ngi waxtaan. na na nañu nañu heure beeg soxna Mariama Matul ma daaneel rapidement. <laughs> waaw ci recommandation parce que loolu mooy jàngale bi. mooy li nga xam ne dafa jëm ci yëg-yëgu jigéen. jigéen ñi bu ñu mëneen di tel sëy moom moo gën. parce que looy gën di yéex a sëy rek boo def lu accident mën la dab ci yoon bi. bu dee ci wàllu. koom-koom moom moo war a tax nga doy da nga war a doylu te dañ la ciy yar ak valeur yi nga xam ne société bi daf la ci war a yar. jërëjëf. góor ñi aussi jàng sëy parce que góor ñi seen ñàkk mën sëy parce que fii ci Sénégal góor ñi dañoo jàpp ne bànneex moom góor rek ko mën a yëg. war a yëg jigéen du ko yëg loolu day tax. ku jigéen ki nga xam ne moom dafa soxla bànneex xelam di dem ci koo xam ne xëy na moo ko mën a jox bànneex boobu ñu yemale ko fii ba beneen yoon nañ ko fi dagg xam ne nag li duuf ci nag bi yëpp mbokk yi xajul ci cin bi bu soobee yàlla waxtaani nee naa leen dafay continuer ci kër yi continuer ci ëtt yi continuer ci fi nga xamni mom moy euh, salon yi ndax nak gaay dañuy junj rek waye li ci dess mbokk yi dañ koy yeggale ci biir kër yi ndax Mariama Dramé mu ngi wara def euh, li nga xamni mom moy journal 23h mention spéciale à Elage Hadj Bamba Gueye ñu koy gërëm bu baax ci ndimbal gi mu indi tay euh, Awa jaw moom mbokk yi mo jaar ci robe bi ki nga xamni moy Serigne Touré mbokk yi moy jaay bijoux yi merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui jërëjëf wa Arco de Dakar waye nak mbokk yi Ah, bu leen fàtte mukk ne àdduna kafe la te borom moo koy sukkaral boppam à bientôt.